naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk sadoor bu Aziz Aly Ndiaye alburaax ak kiw ñoo ñoo jàppale tey presse ci bés bi too du mën a ñàkk ñaari xale yaa ngay léew too léew too du mën a ñàkk Abdou Saliou ji am lu bëgg ñaan ñëpp mu nekk round d'observation la ñuy def uh-huh. dañuy xoolante rek. dañu bëri. li ma la gis bu ñu jàppantee combat bi jeex. bu ñu jàkkantee Babacar. combat bi daal di jeex. aruma ci dem dellu si. Babacar. léew taa baa bar. léew taa baa na. Modou Diam méb na. Modou Diam méb na. waa ñaari tali waa Biscuiterie Babacar Leewtoo bi ma gën a bar waa yoo Babacar Leewtoo ba ngay a bar waaye caata gi tekki taxaw Reug Reug ñu doxe gauche Babacar Reug Reug ñu doxe droite Modou Dia ngi avancé jëm ci koom eh, eh, eh door na sànni na bu dal Modou Dia sànni na droite boobu dugul loolu du xeex Babacar Babacar ee eh, Thiat dooran na baa bon Thiat door na Thiat remise na delloo na ko ku nekk nga yónnee sa morom xale yi duñ ay ragal Thiat eh, daw na jëli ko doorante nañ mu def wóorul loolu wóorul mais Modou Niang mi mais ni muy doore moom ca tamit ànduma ci. parce que day door ba tànk ginnaawam bi tëb. mais bis bu tànkilee parce que nag booy door sa tànk bii ci ginnaaw war a toog voilà. waaw dañoo tolloo lépp mënoon a kii moo ëpp doole. ñaari mbëri cosaan lañu. ñaari mbëri cosaan. ñaari bëri cosaan Babacar. parce que ci dëkk cosaan lañ dëkk. ci dëkk cosaan lañ dëkk. xam la. waaw Waar. ci île des Saloum yi la bokk. Eh, la jël ko. jàppante nañ. caat yokku na. caat jàpp na caat da a xar. moo di am na ngemu. caat ah mbër yaa ngay bëree. Abdou Salim. Eh, Babacar. Abdou Salim ñaari mbëri jàppante nañu de. Modou Dia am na ngemu Babacar. waa jàpp na fu dëgër de. Babacar Modou Dia am na ngemu. jàppante am na ngemu. ñaari loxoom yëpp buñ ci ngemu li. Eh, eh. ko de. da koy daan caat bañ na lee caat si suuna lee caat si suuna lee caat bañ na lee caat bañ na lee parce que Modou da ko bëggoon yokk lan la ko ànd ak moom caat bañ dañoo tolloo doole caat andi doole presque teg nga ba am bu neex combat bu neex lamb na. lamb neex na kontaan naa xamante ne na kontaan nga. lamb bu neex lii a mel. bilaay na. non c'est la jeunesse. c'est la jeunesse. wala ci plateau bi. di jur ne dépassé. dëggantaan. bu di nekk di ñëw am na ngeen coono am. Eh, jël ko. Babacar Thiam Modou Dia. Modou Abdou Saliou caxabal wala yokk da koy yëkkati moo tamba di nga génn foofu moo ca da ngay daw daan nañ la caataan na ca caataan na ba toog ci kawam ba toog ci kawam caataa andi doole caataa andi doole caataa andi doole dama sonn ko def da koo senn jaar ci xam nga bëre bi caat dafa bëre biir bëre bu wóor. waaw yi ne ay léegi la waxoon. mu ngi koy yëkkati. waaw bi du suuf de waaw Babacar waxoon na la bu ñu demoon tey ko Babacar. fair play fair play. xoolal image bi. lii rafet na Babacar. c'est ça la ligne Sénégal. xoolal image bi. Babacar li dafa rafet. fair play a ngi. la ligne télévision ampleur Babacar. lii mooy sport. tey si kii. Sénès. xoolal ci plateau bi. bien sûr Babacar Faye. bien sûr. bi biir mais day passé. dëggantaan. ngi nekk ci ñoo xam ne ngeen coono am eh, eh, jël na ko caat Modja Modja dañ lay daan Modja moytul Modja dañ lay daan eh, eh. Abdou Saliou jaxabal wala yokk da koy yëkkati da ko sen ñaata xale yu bëri dañu jaar ci fala bi xam nga bëre bi caat dafa bëre biir bëre bu wóor la waxoon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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk